nee na ñu fàttaliwaat aaya bi nga xam ne moo tënk képp kuy borom xam-xam ci jamono muy waltakun minkum ummatun yad'uuna ila alxayr ya'muruuna bilma'rufi wa yanhawna anil munkar wa ulaika humul muflixuun ku nga diine dafa am lu ñu tuddee ay mabaat diine dafa am ay principe dafa bokk ci principe l'islam li taxawul nit ñi balañ leen a sanctionné mooy am na ak kuréel bu yàlla wax ci jaam bi waxul ñëpp de yàlla nee nañu ci alquran na am ab kuréel ci yéen na am ab kuréel ci yéen bu jóg féetewoo di mbaax di tere mbon waaye bu ñëpp toogee di seetaan du baax de na am ab kuréel ci sama xeet wal takun minkum ummatun yad'una ilal xayr na am kuréel ci sama xeet bu jóg féetale seen bopp ci woote jëme ci mbaax dana am ñu woote jëme ci caay-caay dana am ñu woote jëme ci caaxaan waaye nag na am ñu féetewoo ñoom di woote jëme ci mbaax di woote jëme ci yiw ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna anil munkar di digal nit ñu lu baax di leen tere lu bon pour bi nee na wa ulaika humul muflixuun ñooñu ñooy way jaxe alquran moo bëgg doomu aadama yi fokk ñu di leen wax lan moo baaxul pour ñu mën ko xool loolu ci yërmande sama borom la ba waaye mënoon na bàyyi nit ñuy tëmax tëmaxin di làmbatu pour di def ku def lu naqari yàlla boo deewee nu duma la waaye déedéet danaan dem leen informel ma jaam ñi li nga xam ne baaxul ñu dëkk ci nopp yi rek nangam baaxul bu leen ko def nangam baaxul bu leen ko def nangam lu baax la dee leen ko def nangam lu baax la dee leen ko def loolu mission bu noble te loolu la yeneen yi daan dox buur bi nee na ñooñu ñooy woy texe yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi tegaat ci ne من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حديث بوهو كانت أدنى يب مقل من كل إيش كم مقل ليحب نمت جيدا مقل رفج ولفل ولكن لك ونك تجي موي سنو بورم بو سنت نين تي خيتم يي نني فيتي و بنو جيسي استفان رك لو خمني من يحق na nu jóg gaaw dindi ko ak seen loxo balaa yàq parce que yàq baaxul suñu borom indiwu wunu ci kaw suuf pour ñuy yàq daf nu andi pour ñuy defar mu ne bu nu amatul kàttanu dindi ko ak loxo nanu ko dénoncé mooy nanu ko dindi ak seen làmmeñ ñoo xamal ñi ñu ne leen ah def leen attention de nangam jii de xew na waaye baaxul te ku ci saxit nangam mën na la caa fekk te loolu du doon lu neex su ngeen demetee nag ba mënatu leen ko wax ngeen yëkkati état bu nag di ko metti lu rek ci seen xol xam ne lii day bu ma amoon pexe du am su ma amoon kàttanu wax it naa ci wax ba du sotti waaye comme yooyu yëpp mënuma ko maa ngi koy naqarlu sama xol waaye bu kenn toog seetaan rek ne fii la àddina bi toll ma wax ne léegi nag ñun ñu ngi ci ñaareelu étape bi fal yughayyiru bi yadihi moom léegi daa mel ni ñëpp d'accord nañ pour nañ ko dindi ci àddina bi kooku tubaab yi gañe na ko mooy def katu lu bon bu continuer ci loxoom ne ko da ngay def lu bon ne ñëpp bàyyi yow l'essentiel bul def lu bon rek loolu léegi ñëpp nangu nañ ko ndax lan liberté liberté léegi kay dañu naan la rek l'essentiel yow moom bu ci bokk waaye bu fi kenn def nangam lu bon la loolu kenn du ko def parce dañ naan nit ki am na droit tànn na lu ko neex mu def ba léegi daanaka li ëpp ci nit ñi nangu nañu loolu mooy booy def sa lu bon dañ naan la defal sa lu bon rek ku ci wax ñu ne ko sa yoon newu ci léegi ñu yem ci ñaareelu étape boobu damay ragal nag mel ni ne ñu ngi bëgg a wàcc ci ñetteelu étape bi mooy ban mooy léegi kenn duutu ci wax dañu koy naqarlu ci seen xol su fekkee dem na ba boroom xam-xam wala imaam yi gën a sensible ci àddina bi ñoom ñoo ko tuddee bi sensible nag boo ci waxee ñu ne la bu ci wax lan la borom xam-xam war a waxati imaam yi yem leen ci seen minbar yi bu leen yem ci loolu sax waaye na ngeen yem ci qaala allahu qaala rasul mooy lan yàlla nee na yonent bi nee na mais lan mooy yàlla nee na yonent bi nee boo nee góor jigéen xalam na baaxul ñu ne la yemal ci li yàlla wax boo nee njuñ bi ci politique baaxul ñu ne la yemal ci li yàlla wax rek loolu bu ci dugg sa yoon newul ci waaw yàlla moom li mu wax léegi lan la xanaa kon yàlla moom léegi ñiy jëw rek lay waxal xanaa te mu jëw daal ngay traité te kenn du la wax dara nañu bàyyi jëw nañu bàyyi wax lu dul dëgg nañu bàyyi wax lu leerul waaye affaire faramaso mbiri affaire politique affaire ngóor jigéen dañu na ah noonu yooyu moom imaam yi seen yoon newu ci mais lan la seen yoon nekk kon moo tax loolu bu ko benn borom xam-xam nangu ab saay saay buy def lu ñaaw du bëgg ku ko wax te lool nag yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dund na ko ba mu commencé di wax mbon-mbon ya ca nekk la ko jural ci fitna benn benn nitu yàlla benn borom xam-xam ci àddina muccul ba mu jógee pour wax ne moytu leen mbon gi ñu leen di installeel ci àdduna bokk na ci mbon yooyu tey li nga xam ne moo ci fës ci jamono bii ñu toll mooy mbirum góor jigéen man wax naa keroog ne mbiru góor jigéen de ki xamul ci àddina bi tollu dong la jaaxalul waaye ñi xam li xew di gëstu ñi àddina bi di doxe xam réew yi ni ñu leen di puutee di leen forcer pour ñu légaliser ak ngóor jigéen yow ku ne dina wax lii xew ne jarul wax ba mu def yow am na ñoo xam ne nii nag ñoom problème mu lekk ak naan moom lañu am ñoom bu ñu xasee lijjanti lu ñu lekk ak lu ñu naan seen yoon newul ci leneen bu jikko yi doon yàqu ba àddina tukki seen yoon nekku ci waaye wallaay ko xamoon mbon gi ci góor jigéen mu dal sa njaboot mu dal sa njaboot balaa nit ñi di xam mbon gi nekk ci góor jigéen ak war a taxaw temm taxawaay bu sévère nag ba bu fi jege nga xëy bés di yeewandoo sa doom bu góor mu nekk góor jigéen su boobaa boo déggee ay nit yuy wax ci góor jigéen doo yem ci taxaw di tàccu da jóg ànd ak ñoom yow dem xeeti waaye ku xam am sa doom mu fàbbee ko dem ci ngóor jigéen ku nekk dina wax ñu woyofal mbir mi ba mu des yow am na ñu koy dund nag am na ñoo xam ne seen doom a ngi dund lool xale yu góor yu bare ñi ngi ciy dugg ñee nga bitim réew ñii ñi ngi ci biir réew mi am na vidéo yoo xam ne ñu ngi circulé ci whatsapp yëpp yëpp ñëpp di ko gis ay xale yu ndaw même pas vingt ans mbaa buñ ca tollee ca la ñuy yem ay góor ay sénégalais di wax wolof ñu tiim leen ñu xeesal ba weex tal posé ay xet ay jigéen di leen filmer naan leen ku leen yàq mu naan diwa a yàq nii rek laa def góor jigéenee góor jigéenee ba jéggi dayo te ñooñu bokk ci sunu njaboot ñun te ñooñu tubaab yi taxaw temm ne nañu leen may liberté pour ñu def ko moo tax man dama ne kii sikk sàkk naan ak góor jigéen ñi ngi fi wala nekk bi kooku moom a jaaxal léegi nag fexe di leen lewaayu ak di lewetal ba ñu dugg ci kër yi yépp ñëpp jàpp seeni nopp di yuuxu comme ni njaaloo gi tasoo nii bu ñu moytuwul ak ngóor jigéen noonu la nar a tasee ci àddina bi parce que ñoom duñ ko jaarale fenn lu dul ci xaalis su ko defee loolu nag moo tax képp kuy borom xam-xam war nga taxaw ci jàkkaarloo ak saay-saay si nga xam ne seen yitte yëpp mooy ñu installé ak ngóor jigéen fii ci réew yàq valeur yëpp yàq jikko yëpp parce léegi kenn talatul jikko ku nekk loo lekk ak loo naan rek nga taw gis nga Afrique noonu la ñu tubaab bi di rey moom day fexe ba nga xiif fexe ba nga mar fexe ba rafle fexe ba ñàkk foo dëkk su ko defee sa yitte yëpp mooy loo lekk ak loo naan ak foo dëkk ak loo sol talatoo dara mu ñëw nag di yàq sa njaboot di installé ci ñoom ay jikko yu bon yoo xam ne bis boo demee ba am alal golo ngay desi ci sa kër ak i xaj ak i bàyyi ma mais dootoo desi nit ci sa biir kër ma ne loolu am lekk ak naan jarut moo tax bu sénégalais yi xamoon li xew ñëpp a waroon a taxaw tem tem ne lii lépp lu koy niru rek lu koy niru waxuma sax nga nekk góor jigéen ah li koy niru rek bu ko nit gis ci réew fi aw mukk ilaa ñu midi ko boobu ma doon wax bii phase te muy defal promotion góor jigéen ñi di gaañu di bañ a dégg waaye man bu ma gisee góor bii gàtt saak di woy addina yëpp di seetaan nekk ay xale boo soloo ñu sopp la di solu comme ni ngay soloo nga dem di sol yëri jigéen yow yaa ngi leen di influence nga dem di gàddu saabu jigéen nga dem di takk caq nga dem di takk ay chaîne nga dem di sol ay drapeau boo xam ne góor jigéen ñi lañ ko xamee am na mbokk yi insta naan couleur kenn moomu ko ci àddina couleur kenn moomu ko am ko moom kay couleur kay boo ci tippoo yaa ko moom àddina moom foo taxaw ne vert jaune rouge étoile ci digg bi ñëpp xam ne fii Sénégal bu football woon fii ñëpp toog di seetaan nga dem yore drapeau Algérie ñëw toog ci biir nit ñi boo moytuwul doo doy sax ñëpp danañ ne la yow xanaa faraloo Sénégal xanaa Algérie nga farak waaye lu tax ñu ne ko xanaa Algérie nga farak parce que drapeau bi moo tax ku yor drapeau boobu ñu jam la baaraam lan la fi wut surtout nga yore ko ci moment yi nga xam ne mooy moment yi gay pride di am moment yi yi góor jigéen ñi di def seen promotion di ko di ko tas ci àddina bi yëpp pour ñu gis leen nga dem Sénégal nga sol maye góor jigéen loolu ku ci rafet njort da nga ko sopp rek wala nga ñàkk xam li xew waaye kenn wóolu moo tax ay nit yu mel noonu bari nañ fi nag bari nañ fi lool waaye ñu mat a dénoo tamit yun ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn xadis ne mathalu lqaimi fi xududillahi walwaqici fiha ka mathali qawmin tahamu ala safinatin fa saara baaduhum ala wa baaduhum asfaraha وكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا يعني أنت بيمكن ليبا صحابة يدنا أو نيتي يعني ني دوغتي جيج دوغتي بن غال غال بي أم إتاج أم يني ci suuf am ñu ni ci kaw ñu ne ci suuf bu ñu soxlaa ndox dañuy yéeg ci escalier gaal gi ba ci kaw mu ne tiim géej gi tànk loolu nag dañoo dem ba tàyyeen ci jógee gi ñuy jógee ci suuf ci ku xam ni bateau bindee da ngay yéeg ba ci kaw door mu ne tiim géej gi ñu tàyyeel ci ni ñun daal dañu war a bëtt fii tolloog ñun ci gaal gi ci suuf rek fu ñu soxlaa ndox rek tànk ci géej gi jëfandiku au lieu ñuy yéegaat ci kaw di déranger ñi ci kaw yeneen ci ne waaw ndax ña ci kaw bu ñu nangoo bàyyi ñi ne ci suuf ñu bëtt gaal gi pour di tànk ndox ndax seen intérêt bopp li wér mooy gaal gi bu bëttee dina sol ndox bu solee ndox ñi ci suuf dinañ dee deewaaleel ñi ci kaw mu ne waaye ñi ca kaw bu ñu amee fayda ba wàcc téye loxo ñi ci suuf ne leen doon fi yéene dëkk ci suuf dangeen ko bënn kenn du bëtt gaal gi bu ngeen soxlaa ndox jaar leen ci kaw ak lu mu metti leen nee na su boobaa ñi ci suuf dana ñu mucc ñi ci kaw mucc mu ne seetaan kuy def lu bon nag mooy bu alkoo dalay alagaale rek wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasatan waaw loolu la borom xam-xam dese ci àddina mooy di alerte nit ñi wan leen ne moytu leen mbon waaye léegi bu demee bu bu bëggee wax mbon ñu ne la da yem sa place mbaa ñu di la mënaat ah boo ñàkkee fay da nga nangu ko wala ñu corrompre la xaalis nga jël ko te noppi parce que ñoom seen xaalis yu bon yii nga xam ne nee nañ góor jigéen ñoo leen koy jox papaay waajooju moo ko wax de musicien bi ñuy tuumaal nee na moom góor jigéen ñi dañ koy financé xaalis muy jël moom ku ko jox xaalis mu jël ah jullit du doxale noonu nag jullit moom mën nga ko jox xaalis te xamul fan la jóge mu bañ laa laaj foo ko jëlee mu jël ko waaye kii góor jigéen la nga xam ne góor jigéen la yëpp góor jigéen lay def jox la xaalis nga jël yaa ngi mooma yëpp ma ne ko yow sa conférence de presse bi da ñëwoon pour firndeelal nit ñi ne leen yéen góor jigéen moo leen nandal ci ngeen dund ba toll nii kon buñ la ko jiiñee waru la mett parce que mën a taxaw ne du ma góor jigéen bugguma ko waaye seen xaalis buñ ma ko joxee ma jël ko yow avoué nga ne nga ne kii góor jigéen la te loolu ñëpp xam nañ ko gis nañ soirée bi ñuy def ñu jox la ko nga jël di ko lekk te naan bugguma ko waaw loolu du dëgg bugguma ginaar ci naan ci ñex loolu mënta moo tax xaalisu góor jigéen waxuma koo xam ne da ko gis nii muy dem rek nga xam ne kii góor jigéen la parce moom loolu wax moom dafa président ne góor jigéen ñi dañ koy jox xaalis muy jël kon xam na leen moo tax ñooñu ñu mat a moytu la jullit dafay xam alal ji muy lekk fan la war a jóge nit bu dul lekk lu lew mën na am doom ju ne bare waay na ku la gën doom daf laa gën lu muy lekk ci alal ju baax kuy lekk alal ju lewul ëllëg di nga lor sa njaboot ndax daanu sosoo ci lu lewul te bu boobaa def lu leen lew du leen yomb nga sañ a taxaw ci àddina yépp ne góor jigéen ñi dañ may jox may jël donte bokk ma ci ñoom nga wax ne benn mbokk c'est la première fois fii de téere ngeen fi dal nañ fi woykat bu nekk gaaral nañ fi woykat bu nekk tamit ki ñuy tuddee le roi di mbalax amul dañ ko fi yàqu ak yeneen ak yeneen am na musiciens yoo xam ne fekk nañ leen fa ñu nekk sax tas seeni soirée waaye mosoo dal ci benn woykat ci àddina góor jigéen tontu la mosul c'est la première fois ñu dal ci benn woykat ay góor jigéen génne def vidéo di tontu loolu am na lu mu tegtal moo tax loolu ku mu leerul ci sa bopp dara dootul leer ci sa bopp addina na bi nag foofu la jëm góor jigéen ñeeg formation yi ñoo yem ñi ngi wër ci xool ay nit yoo xam ne ay porteur de voix lañu ay nit yoo xam ne ay nitu mbooloo lañu ay nit yoo xam ne mën nañu influencer ay nit ñu di leen financer même boo dul jëf jëfu góor jigéen nga leen di defal promotion yow di jox seeni marque nga di ko sol di jox seeni xaalis nga di ko def di leen juyal ay pièces théâtre di ko jàllale di def say kilibu musique di ci jàllale seeni seeni logo wala seeni marque yooyu yëpp ñu ngi koy jaaree fu nekk pour lan pour miinal ko nit ñi ba ñu miin ko ñu ñëw dugg seen biir te kenn du ko yëg. yal nañu yàlla musal ci ñu mel noonu. wax gouvernement bi nekk na ci jël ay mesures yu sévères. gis nga ay nit boo leen jiitee nga xam li ab wi bëgg mais da nga koy def waxal leen lu nekk waaye bëgguñu góor jigéen li nu bëgg kay leer na mooy fubal fubal moom lu ci état defoon ci àddina sénégalais yi xeeb na moo tax lu mu fa def dooñu leen mais góor jigéen dafay xew rek nga xam ne sénégalais yi ci boppam ñoo bëggul góor jigéen te loolu président moo ko waxal boppam bi mu demee jiite ne biñ ne ko ndax góor jigéen ñi sañ nañ fa dox di manifester wu dox seen ne bien mu ne ko te dara du leen ci fekk mu ne ko ah ci côté état de dara du leen ci fekk ci côté peuple bi nag bon mënuñu ko assurer loolu kay leer kon Sénégal yi bëgguñu ko lan moo tere ñu defal ñu ay loi yuy tere ngóor jigéen lan moo dox ci jigéen bu dee peuple bi lañu fi nekkal bu dee bu dee askan bi lañu fi nekkal am naa yaakaar ne kenn amul sikk sàkk Sénégal ne bëgguñu ngóor jigéen du jullit du chrétien loolu moom bu kenn layee affaire kii bi du du chrétien ñaar ñii ñoo fi nekk kenn ci ñoom bëggu ko te boo ko lancé ci adduna bi fii ci Sénégal nga yëg ne kenn bëggu lan moo tere ñu def ci ay loi yu sévère fexe ba ne lii moom comme suñu diini bugg suñu aada bugg te dëkk bi ñu fi nekk di boroomi ngëm-ngëm ñoom ñëpp d'accord nañ ne baaxul lan moo dox seen digganteeg defal ñu ko ay loi loolu lim lay tegtal mooy ñoom dañoo bëri caaxaan du ñun lañu fi nekkal mais seen bopp ak tubaab yi lañu fi nekkal su dee ñun lañ fi nekkal daal nan ñu utal ay loi yoo xam ne dafay téré ak ngor jigen ci lu leer ba ñepp xam ne da koy mais bu y amé ba paré nga def lu ay xel di voter nouveau droit xamul luy nouveau droit ban nouveau droit mo ci loolu di indi ay ministère yu am genre genre a ci loolu di may licence ONG yo xamni dañuy dooleel ngor jigen yamuñ ci loolu sax ay yu def association encore état bi reconnaître at xanaa loolu gën na tey sax loolu xel na dañu bàyyi seen caaxaan nguur jigéen état mooy bàyyoon ci Sénégal ñoom ñoo ko dooleel mais bu doon nit ñi kese réglé nañu ko bu yàgg te ñoom xam nañ ne bis bu ñu génnee ci mbedd mi sénégalais yi réglé ko bu yàgg bu jeex mais fan yii làqu ba kenn bi jot ci ñoom xam nañu te koo ci jot rek ñu yóbbu ko bitim réew loolu nag àq bu rëy la mooy aw nit boo leen di jiite da ngay protéger seeni jikko da ngay protéger seeni ngëm da ngay protéger seeni su defee loolu ñu ngi leen di wax ni bu ñu ko deful it bokk na ci li leen di yàlla di laaj yowmal qiyaam di di artuwaat rek di ñaan sénégalais yi nañu xam ne football am folo ay caaxaan la ñu xam ko ñu bañ ko xam football ay caaxaan la da ko ñëpp xam ab caaxaan nag bu demee ba jël place boo xam ni ci doomu aadama yàlla sax amu ko ci moom ëpp na dem bay faat bakkan Sénégal qualifié na dem final jëlagul sax ko demi final rek la gañ ay nit di sibile ba dee ci dee kooku bu demee lu muy wax borom yéen ngeen ko bii passé bi mu gañee gars yi génn di sibile koo xam ne bi muy dee bàyyi na jabar bàyyi njaboot ñuy interroger jabar bi muy wax jëkkëram ci lan la dee parce que Sénégal moo gañe mu génn di manifester wu te bu bëri buy yooyu mooy la nanu yeewu lii ay jaaxaan ku ci dee di nga ko layoo di ay patriote ngaat da bëgg sa réew loolu dafa am lu ko ëpp solo man li may ñaan mooy fi nu toll ci bëgg caaxaan yàlla nañ fa toll ci bëgg yàlla lu ko ëpp sax waaye nii ñu jubloo ci caaxaan mi rek sénégalais yëpp ànd ñëpp vers son rouge réew mi réew mi yàlla na yàlla albati mbëggeel googu multiplier ko ay milliards fois ñu bëggee ko yàlla parce que lii ku ci dee man xaw ma foo jëm de yàlla na yàlla suturaal ñu yàlla na yàlla def ñu ay jullit yu dëgg yàlla na yàlla musal ñu lépp luy fitna yàlla na ñu yàlla musal ci mujj gu ñaaw yàlla na ñu yàlla musal ci dee gu ñaaw salaamaaleykum